ku bindoo ni tama ñu tëggee la boor bu ne ña doon werante wala naan moom laatu moom ah moom la maam mbay Niang mooy wax ci kàddoom amul benn trucage amul benn montage amul leen luñ ci yokk mbokk yi xel du jëriñ lu dul xalaat bii mooy ñaareelu audio bi ngeen déglu ko bu baax a baax te partagé ko mu wër ndax gatsa gatsa gi day door a door. ñëpp xam ne ni Mame Mbaye mi kat wax dëgg yàlla nit principe la bi Macky waxee troisième mandat moo taxaw fële. ndax su ko defee ma bàyyi ko bi Idrissa Seck waxee mu ne man fa ma waxoon fa laa taxaw Idrissa Seck mi aajee boroom aajee boppam moo ko fi indi. man loolu soo ko defee situation résolue te loo xamante ni da ngay dimbali réew mi ba pare Macky si boppam moom dina ut solution boo xamante ni mooy solution permanente la situation du pays jàmm am. dana eh, soo bàyyee mag kan moo koy desee kan koo xamante ni c'est un combat. ñu njëkk lu ma mën a def pour ñu pour ñu bëgguma saaga dinaa ko def aywa comprendre nga man man xam nga pour une première fois damay nëbb sama combat mais ñoom ñëpp man faale wu ma leen mooy Amadou Ba ak ay affaire fi nekkoon di man ñeme ragaluma sama position bu ñu dee joogi dañuy joogi comprendre ça je a sama biir xol. loolu moom kenn mënu ko génne sama biir xol. man de. lu ma mën yow yow sax leneen sax mën na doon mënoon nga defar benn audio yónnee ma ko mu fuité ko. affaire yi kenn ku ci nekk yaa yor say nopp te dégg nga kàddu yi Mame Mbaye Niang lu doy waar. te kenn ku ci nekk xam nga ne moos kàddu yi moom la mbokk yi dañu doore woon suñu kàddu ne lu ne fàng kenn du ko jeex kon ñu ñëpp dégg nañ kàddu yi mu doon kàddu yi doy waar Ousmane Sonko ku ko songu sangu sànku loolu day lu wér Ousmane Sonko nag day koo xam ne yàlla dafa ak moom Ousmane sunku day koo xam ne ginnaaw bi ko ñëpp beddee ko peuple bi ànd ak moom ak yàlla mi mu yaakaar ndax nag ci jamono ji wala sax ak jamono yu paase yépp ak bu bu mën a doon ñu bàyyi xel ne yàlla rek a fi nekk yàlla rek moo jara yaakaar ba tax na lii lépp rek day doon ay misaal yoo xam ne dañu war a bàyyi tooñ ndax Ousmane Sonko lenn rek ñor mooy fëgg xelu ndaw ñi askan bi fexe ba li ñëpp bokk ñëpp jot ci waaye nag bañ a bokk benn bool boo xamante ne fukki nit rek wala juróom-ñeenti nit ñoo koy pàccoo muy alal lu réew mi. alal joojee nag nga xam ne mooy koom-koomu Sénégal ndaw ñi xippi seen bët ginnaaw bi leen Ousmane Sonko tegalee lu leer ñu xam ne yoon wi leer na ñu tegu ci loolee nag tax na bu ñu bari ñoo xam ne seen intérêt dafa nekk ci bool boobee ñuy pàccoo ñoom ñëpp duñu tiit ba tax na lu ne la ñuy wax waaye nag yàlla nag bu noppee rek noppi na yàlla muy dogal nag mooy ki nga xamante ne jàppale na Ousmane waaye jàppale na Sénégal ndax Sénégal jamono ji ku ne xam na ne Ousmane Sonko mooy chef de l'opposition waaye Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne képp ku ko songu rek xam nga fa ngay mujjee ñaata nit ñoo jóg song ko fan la ñu mujjee torox ñaata nit ñoo jóg di ko yàqal wala di ko jéemal fan lañ mujje